asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci benn secret ñaan bu nga xam ne benn tegtal boo xam ne li ko tax a jóg mooy dañ koy jëfandikoo ngir yàlla di ñuy wan li nëbbu ci doomu aadama maanaam doomu aadama nit da koy jëfandikoo ngir yàlla xamal ko lu nëbb ci moroomu nitam ba xam moroomu nit ki bëgg na ko wala bëggu ko wala lu baax la ko yéene wala safaan wala noonoo na ko wala noonoowu ko wala sax mu bëgg xam waa ji ku jub la wala ku jubul donte nag kumpa yàlla rek a koy xam qul laa yaalamul xayba illa allah waaye nag yàlla day may ndax moo ne wallahu yaxtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dul fadlil azim looloo tax su fekkee dangaa bëgg xam nit ki ba xam yéene na la jàmm wala yéene wala jàmm wala nit ki ku baax la wala du ku baax am na tegtal booy jëfandikoo yàlla am lum la ci wan waaw mbokk yi tegtal bi li ci gën mooy soo koy jëfandikoo na nga bàyyi ba guddi te bala nga kaa jëfandikoo na nga fexe ba ànd ak laab su fekkee jàpp moo lay jagal nga dem jàpp ba sell sangu farata moo jagal nga sangu ba set ba nga daal ñëw daal sol yére yu sell yu laab fexe ba nekk ci bërëb bu laab te sell nga daal di julli ñaari rakkaa soo julee ñaari rakkaa nga fekk yaa ngi jublu xibla noonu nga jubloo xibla nag nga daal di jàng aaya yii ma lay bëgg a wax aaya yi mi ngi ci suuratu naml ñaari aaya nga cay jël muy aaya 74 ba 75 aaya 74 ak 75 te mooy wa inna rabbaka la yaclamu maa tukinnu suduuruhum wa maa yuclinuun wa maa min gaa'ibatin fi ssamaa'i wal ardi illaa fi kitaabin mubiin wa inna rabbaka la yaclamu maa tukinnu suduuruhum wa maa yuclinuun wa maa min gaa'ibatin fi ssamaa'i wal ardi illaa fi kitaabin mubiin waaw kon suuratu naml ñaari aay yi muy aay juróom ñaar fukk ak ñeent ak aay juróom ñaar fukk ak juróom waaw léegi ñaati yoon nga koy jàng ak noo koy jànge kon nee naa guddi jot na fexe nga ba ànd ak laab benn muy jàpp wala muy sangu farata nga sol yére yu laab nekk ci bërëb bu laab julli ñaari ràkka bu ñaari ràkka yi matee ba nga sëlmal nga toog jublu xibla wax audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaye nag bala ngay wax aoudu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim da nga naan maa ngi fas yéenee jàng aaya yi ngir yàlla wan ma li nëbbu ci mbiri diw da fexe ba ki nga bëgg a xam li nëbbu ci moom nga xam maa ngi fas yéenee jàng aaya yi ngir yàlla wan ma li nëbbu ci mbiri diw waaw su ko defee nag nga daal dee adat turuwaa ji ki nga bëgg a xam li nëbbu ci moom da nga koy adat adat gaa yi xam nañ ko mooy tur bu nekk am na valeur numérique am na lim bu muy taxawee soo xoolee araf ya araf ya ko composé loolu moom compliqué wul ci gars yi tur bu nekk rek am na adat bu muy taxawee muy valeur numérique muy am na lim bu muy taxawee kon soo xamee turuwaa ji ban lim lay taxawee nga daal di ne audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim daal di jàng ñaari aay limu limub turuwaa daal di jàng ñaari aay yi lu toll ne lim bi turu waa ji di taxawee maanaam su fekkee waa ji turam quatre-vingts lay taxawee muy juróom-ñett fukk da ngay jàng ñaari aay juróom-ñett fukki yoon muy quatre-vingts fois soo noppee nga daal di tëjee salaatu ala nabi muy allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wala baneen siira boo man inchaa allah waa ji de lépp lu la doon wante du dëgg ci moom bis boobu moom yàlla dina ko feeñal ba mu leer naññ bu dee jàmm la lay yéene wala ay wala ku baax la wala ku jubadi la incha allah yàlla dina la ci wan tegtal moom bu leer naññ ayi yi mooy wa inna rabbaka la yaclamu ma tukinnu suduruhum wa ma yuclinuun wa ma min gaa'ibatin fi lsamaa'i wal illa fi kitaabin mubin muy suratu naml aaya 74 ak 75 muy aaya juróom ñaar fukk ak ñeent ak juróom ñaar fukk ak juróom kon mbokk yi mu fàttaliwaat ne kon li tax a jug bi mooy su fekkee da bëgg yàlla wan la li nëbbu ci waa ji waa ji li muy nëbbu li nekk ci biiram intérieur am waaw ba xam li muy feeñal ak li muy nëbbu benn la wala déet moom daal fexeel ba xam turu waa ji ban lim lay taxawee nga jàpp ba sell. sol yére yu sel nekk ci bërëb bu sell julli ñaari rakka bu ñaari ràkk yi ma tey nga sëlmal fekk yaa ngi jublu xibla nga yéene nag ba noppi bala ngay liggéey da nga yéene di ne yow yàlla lii may bëgg a jàngkat li ma ci yéene mooy dama bëgg nga wan ma tegtal ci lan la diw sàngam di nëbbu lan moo nekk ci biiram lan moo nekk ci xolam ba xam ku baax la wala ku nekk ci safaan wala jàmm la ma yéene wala safaan la ma yéene su ko defee nag nga xam adadam lu mu taxawee muy turam ban nombre lay taxawee ban lim lay taxawee bu ko defee nga ne audu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim daal di jàng ñaari aay yi muy wa inna rabbaka la yalamu ma tukinnu suduruhum wa ma yuclinuun wa ma min gaibatin fi lsamaai wal ard illa fi kitaabin mubin lu tol ne li mu turuwaa ji na mu toll waaw noonu nga koy jàng bu fekkee xamoo li mu turuwaa ji na mu nga jàng aay bi kon cent fois bu fekkee munoo adat munoo fexee xamoo ban technique la ñuy utiliser ban méthode la ñuy utiliser pour xam valeur numérique pour xam tour ban lim lay taxawee kon jàngal aaya yi rek téeméeri yoon fekk nag laata nga koy jàng na nga ci yéene ne damaa bëgg yàlla wan ma li nëbb ci mbiri diw su su lim ba matee muy bu fekkee xam nga Euh, turu waa ji ban lim lay taxawee nga jàng ko lu tolloog lim boobu wala su fekkee xamoo ko wala mënoo adat nga jàng ko cent fois bu matee rek tëjee salaatu ala nabi incha allah waajooji day lam la doon wan yàlla na mu nekk mu dëppoo yàlla fekk mu dëppoog rek lim nëbbu waaw waaye incha allah bu fekkee dala doon wan lenn ba noppi nëbbu safaan ba moom yàlla dina la wan tegtal bu leer naññ su fekkee yow selal nga gëm nga mbokk yi ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci YouTube bii di yaatal xel ci di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di aimé ndax fa la njëriñ yee gën a yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa